الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كلمة التقوى اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أئمة العلم والهدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون ربح من اتقى وخاب وخسر من ظلم نفسه واعتدى عباد الله من الملحوظ في مجتمعنا ظاهرة الكراهية ظاهرة الكراهية والعنف وهما يسيران معا لأن الثاني نتيجة من الأولى وما زالت هذه الظاهرة قائمة ومنتشرة باختلاف حجمها وضخامتها ومستواها ودائرتها وأشكالها فهي واضحة وجلية كالشمس في ضحاها في جميع القطاعات في البلد لا سيما في الميدان السياسي mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla mu màgg mu kawe mi mu bind tey dogal mi jubal mi moom nguuruk asamaan ak suuf ak li nekk ci seen diggante ñu ngi seede ni moom rek mooy yàlla wéet ci aw turam ak i melokaanam ak i jëfam ñu war koo wéetal moo xam li nëbbatu ak li feeñ ñu ngi seede ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaamam la ndawam la moo woote ci kaddug laa ilaha illa allah muy kallu kaddu kaddug taqwa kaddug ragal yàlla yàlla julli ci moom sëlmal ci moom moom ak aw ñoñam ak i saxaabaam ak mbooleem ku soobu seenu yoon ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekkoon njiital xam-xam ak ak njub mbokk yi ginnaaw loolu bénéfice wu na képp ko ragal yàlla tey jëf-jëf ju baax waaye perte na sooy na képp ku tooñ boppam tey jalgati di transgressé ndigal yàlla yi subhaanahu mbokk yi am na lu ñu seetlu ci sunum pénc ci réew mi seetlu nañ fi phénomène boo xamante ni phénomène la bu jëmee pénc mi ci fitna seetlu nañ ko ci domaine yu baree baree bari maanaam ak mbañeel ak violence moo gën a fës ci pénc mi léegi mbilim lacc rek nga gis safara fitna daa di tàkk ci ay bërëb te loolu nag dafa tas man nga ko xalaat ni ca kër ya la tàmbalee ba ca parlement fi gën a suufe ci mbedd yi ba fa gën a kawe ci institution ci réew mi booy seet bu ñu ko artuwul li nga àtte ji bu ñu deful ndànk rekk ci guute la réew mi te loolu gënul ñépp ci war a bàyyi xel loolu dafa leer naññ du lu ñuy jeex comme jant bu nekk ci waxtu yor-yor ci secteur yu bari ndëg waaye ndëg rawatina ci terrain politique politique bi ndëg ah fële mbir ma ëppee ndëg te ndëg diine ji wala sun dund gi amul lu ñuy séparer ca leneen la jàpp ni lii ak lee amuñu benn rapport suñ dund gi ak chaîne la lépp am rapport lépp am ak càllale moo xam njàng mi la moo xam paj mi la moo xam politique bi la moo xam diine ji la moo xam culture bi la moo xam esport bi la lépp am ak càllale lu ne ca loola rek ñun ñi ci penc mi ñoo war a fexe nu ñu ko ñage aar ko ba jàmm ak stabilité rekk di am fu mu fi nekk ñeneen ña des doyen di concerné wu leen bu takkee rek nga xam ni ca nga bokkoon kon ñépp a war a dox pour jàmm rekk daal am am na ay sabab ndëg yu baree bari yu tax li xew ci penc mi te lii xeeñ neexul dafa am ay sabab sabab yi bari na te wuute bokk na ci mooy at tanafusul mazmum mooy rivalité bu ñu ŋàññ maanaam ak xëccoo goo xamante ni gu ñaaw la gu rafetul la ku nekk deeni yaa war a jiite yaa war a yilife yaa war a moom yaa war a dogal ñeneen ñi dun dara xëccoo du jóg ci àdduna alhaakumu takaasur yàlla nee na nit ñi dox na seen digganteeg ñu taxaw nan war a taxaw sama digganteeg ñoom ak ëppalante ak xëccoo waaw ak ëppalante ak xëccoo kon loolu du fi dañ waaye nag mën naa rafet mën naa rafet ndax xëccoo win wu ñaaw ak ay pexe yu bari ak wax wax ju ñaaw ak di ko def taxul nga am la nga bëgg te yàlla dogal ko ne ci ñun li nga bëgg ci penc mi loolu day fekk mu nekk la yàlla bëgg wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin li ngeen bëgg du am lu dul dafa soob borom bi nga xamante ni moom mooy dogal bokk na ci sabab yi xurriyatu taabir al mutlaqa mooy liberté d'expression absolue maanaam lu waay neex wax ak nu ko waxe baax na ak fum ko waxe baax na maanaam nit ñi libre nañ ci wax mais liberté gi ñu boyal ko libre nañ ci wax loolu jaadu na waaye nag dafa war a am ay limite am na loo xamante ni boo bëggul ñu wax la ko bu ko wax kenn am na loo xamante ni boo bëggul ñu wax la ko bu ko wax kenn liberté d'expression am na nga wax sa idée ci penc mi ni war naa doxe nii lii war nañu koo joyanti lii war nañu ko baaxal lii war nañu koo maytu waaye nag jarul di ñaawal ay kàddu ba kan bu nekk ku ne di seet na mu gën a ñaawee ngay waxe noonu loola du du rafetal day tax ay xol yàqu day tax ay xol bañante bu ko defee la ñu bëgg a defar yàlla bu xoolee ni xol yi bëggantewuñu rek bu boobaatam tam li ñu bëgg du du gaaw a sotti inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim bokk na ci mooy al taassub al xisbi taifi wal irqi wal qibali wa mooy fanatisme par parloo goo xamante ni ñu ngi ko ci affaire u parti politique yenn saa sax yematul ci politique bi rek day jéggi politique bi dem ba ci diine ji par parloo ci wàllu obédience confrérique ñun ay nangam lan ñee ay nangam lan ne ci réseaux sociaux yi di waxante kàddu yu ñaaw bari bay jéggi sax ñi ko séq di ko àggale ba ca kilifa yi loolu loolu ay étincelle la ay fer ferñeent la yoo xamante ni dana man nga xeeb aw ferñeent mu lakk sa dàgg mën naa taal ak daay ci am penc fanatisme par parloo gu ëpp loolu baaxul dee ni seen parti rek mooy partie bu valable moo baax moo normal loolu baaxul naka noonu sax ba ci wàllu xeet wàllu xeet ak làkk ak waaso ñun ay nangam lan yéen ay nangam leen mën na indi xeex bu dul jeex xeexum nangam du jeex du olof yi dañ koy wax loolu mën na koo indi waaw loolu boo ko waxee rek yaa ngi stigmatiser di tooñ aw xeet loolu tam ci liy waral euh, dégg nga ci violence di am ci penc yi baneen bi bokk na ci suu istixdaami shabakat at tawasul al ijtimaia maanaam mauvaise utilisation des réseaux sociaux ni ñuy utiliser ñun ndaw ñi réseaux sociaux yi tam loolu mënoon nañ ko utiliser autrement ngir jàmm di am waaye léegi technicité bi am ci réseau sociaux yi nga xam man nañoo jël sa bopp kole ko ci ban yaramu kaneen mbaa jël say wax jël sa jëmm ji jël wala jëmmi kaneen def ci say wax yu mel noonu mën naa indi ay jafe-jafe ci penc bi ndaw ñi ñi koy utiliser man ko nañu bàyyi loolu xel ni bisa ngi ñëw seeni cër dana leen seede yawma tashhadu alayhim aydihim wa alsinatuhum ni comme ni ko yàlla wax ci alquran may jum ci aay yi ndax dañoo nuroo waaye bis a ngi ñëw nit ñi seeni cër ñoo leen di seede ni lii yaa ko defoon cër ya bu ñu nit ñi dina laaj cër yi lu tax ngeen wax li ma shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay yàlla mi wax loo lépp moo ñu wax loo tey seen baaraam yi ngeen doon defee nangam ak nangam ba ngeen nekkee at nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax loola li muy yàq moom moo ëpp bokk na ci li sabab source de violence yi ci penc mi mooy ñàkk tënku ci diine sori diine nekk ay jullit ci tur waaye duñ ko nekk ci ci pratique bu ko defee dañ naan non je musulman non pratiquant jullit laa mais duma ma du ma pratiquer loolu bañoon koo nekk gën te diine ji dafa dafay sàmm penc mi di ko aar ci kulliyatul xamsa yi ngeen yi jàll ci xutba yi paase day aaral nit ki diineem aaral ko bakkanam aaral ko alalam aaral ko ab deram loolu diine moo moo moo tax a jóg diine pour aaral nit ki yooyu yëpp léegi nag bu fekkoon ni dinañ bàyyi xel sunu diine dinañ bàyyi xel sunu diine du ñu rey bakkanu kenn du ñu wax ci kenn derub kenn lu ñaaw du ñu sànq alali penc mi du ñu lu baax rek lañuy def bu boobaa yooyu dana tax jàmm am léegi nag yii ñu ngi koy seetlu ci penc mi te saay bu ñu nekkee ci année boo xamante ni pré électoral la année bi jiitooy élection wala année ba élection yi accès bu ñu seetloo penc mi day bari day jax day bari fitna ndax xëccoo gi ñuy xëccoo ay sacrifice sax dina am jekki-jekki nit faatu na xamuñu lu ko rey gis ngeen imam bi faatu bërki démb fii ci zone de captage yàlla xam ak yeneen ak yeneen am na année yi passé maanaam ay xale la ñuy jël di leen def sacrifice ay ay ñoo xamante ne ay pone lan ay yàlla rek a xam lan mooy jubluwaay ñay def loolu mais yooyu ci fitna yi la bokk waxuma laak nag dajale ndaw ñi ay manifestation di am ay émeute di am ñii di gaañu ñii faatu lépp après mu jeex ñu tourner page yooyu nekkaat ci leneen loolu nit ñi dañoo war a am conscience bu yeewu xam ni lii dafa war a dakk lii moom mooy looy réew mi ni juróomi at yu ne dañoo war a organiser ay élection ñu organiser ko ci jàmm ak dal ki yàlla jox ndam li koo ko jël ko kii nu kii ko jëlul kooku mu xam ni moom bësam wala nekk ko daa jotagul léegi lan mooy xàll bi ci buñ tollee ci contexte yu mel nii ci am réew wala ci am pénc wala ci ab kër wala ci ab entreprise wala ci ab famille wala ci mbooloo dafa am doxalin wu ñu war a doxale wu ñu lislaam jàngal yooyu dinañ ci jël ñeent tomb ñu jële ko ci jàngale yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaaba bi ci jiitu ci yooyu mooy alxitaab almuttazin mooy un discours modéré éclairé discours boo xamante ni bu digg doomu la te leer naññ ba pare di delloo si discours boo xamante ni xel yi ngay waxal yenn saa nit ñi seeni xol la ñuy topp ba déborder waaye dangay ngay wax ak seeni xel loolu liñ koy illustrer li ñuy joxe misaal mi mooy yent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee àdduna loolu crise la ci saxaaba yi ñu ngi door a dund loolu seen kilifa dem jaaxle nan am na ba ñu gëmul woon ni yonent bi day faatu mais am ci ñoom ko yàlla éclairé muy Seydina Aboubacar radiyallahu anhu yàlla jox ko am xel akuk dal bi waxee nit ñi leen ab aaya dañoo foog ni aaya boobu tey la doon door a wàcc dafa jël sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni wama illa rasul njëkk muy wax loolu sax dani man kaana yacbudu allaha fa inna allaha xayun laa yamut wa man kaana yacbudu muhammadan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 léegi ndax bu faatoo ndax Muhammad bu faatoo wala ñu rey ko da ngeen di dellu ca ceddo ga ngeen nekkoon da ngeen dellu nekk ay yéefar a ah, ku dellu ca la ne newoon de lool du lor yàlla dara loolu du wàññi yàlla dara léegi nag seeni xel dellu si ñu xam ni nag dëggantaan yont bi faatu na jaamu yàlla day continuer dañoo war a nekk ca lam nekkoon ak dal am mais boobu jaxasoo nan kon loolu discours yu mel noonu moo jaabu buñ nekkee ci ci crise ak crise gi gu mu mën a doon par exemple covid bi ñu génn yàlla mu fi ñëwati am na discours yoo xamante ni da doon tiital population da leen doon ragalloo nit ñi di xat des stressé di jaaxle warta demee noonu nit ñi da nga war a dugal ci ñoo espoir ni dana jeex yàlla ko tege dana fi jóg waaye ba ni mu jàlle comme nin ko dundee ñun ñëpp yàlla bu lu mel noonu amati waaye bu ñu mel noonu di am bu nekkul lu lu général mais lu particulier ci ab gox kilifa yi nañu wax xel nañu raisonner nit ñi crise ay passion du ko régle ay raisonnement ak i raison moo koy régler bu nekkee ci crise nan wax ak nit ñi ci seeni xel nañu discours bi na jëm direct ci xel ñi ñuy waxal naka noonu mbokk yi bokk na ci nin war a doxale mooy xifdul qulub sàmm xol yi ci ñu bañ a tiit bañ a rëngi-rëngi dalal defal xol yi dalal xel yi discours bu njëkk bi mooy nga wax ak xel yi beneen bi mooy nga wax ak xol yi crise bu amee ñaari façon yi nit ay am ci ci xol yi ñii dañuy tiit jàq foog ni échec am na réussite dootul amati ñeneen ñi nag jàpp ni day baax balaa yàgg day baax loolu am na ci ahzaab id yaqulu almunafiquuna walladina fi qulubihim maradun maa waadana allahu wa rasuluhu illa gurura ahzaab nafiq yi dañoo gaaw a tiit wax ni yàllaa ko yonentaam ay wor lañ ñu digoon dañoo waxoon buñ fii eh, li ñu fi am victoire la am gis ngeen kenn ci ñun sax ñimewu la dem ginnaaw kër ñooñu da leeni leen am ñoo xamante ni dañ ñoom lu mën a am seeni xol day day dal day xam ni li liy mujj ci mbir mi jàmm rekk la walamma raa almuminuuna al ahzab qaalu hada ma waadana allahu wa rasuluh wa sadaqa allahu wa rasuluh wama ma zaadahum illa wa taslima ñi am imaan dëgg bi ñu gisee nag coalisé yi ñëw bëgg a xeex ak jullit ñi ñoom dañ ni lii la ñu yàlla digoon akub yonentaam yàlla akub yonentaam wax nañ dëgg te loolu da leen a dellu ak gëm yàlla ak gën a ci seen borom subhanahu wa taala te loolu moom mooy li jaadu ñetteel bi mooy at tafaul wa xusnu zan mooy ngay gàtt nga lu baax tey rafet njort ci borom bi yaakaar ni day baax na yont yàlla baayu yaqub waxoon ay doomam baayu yusuf yont yàlla yaqub ni leen yaa bani yadhabu fataxassasu min yusufa wa axiihi wala tayasu min rawxillah innahu laa yayasu min rawxillahi illa alqawmu alkafirun ñoom dem nañ ba ñoom la def xam nañ ko mais papa di dalal ni leen Yuusuf dana feeñ mook frère am Benyamin dem leen ngeen wëri ko te bu leen désespéré am leen yaakaar ni di ngeen ko gis ndax ki ñàkk yaakaar ci yàlla subhanahu wa mooy nit ñoo xamante ne dañoo weddi am leen yaakaar l'espoir est toujours permis dee leen yaakaar rek ni dana baax loolu dafa baax tam bu crise amee nga defale nit ñi ci ñooñu paa nga leen ni gën a chargé loolu baaxul chargé nit ñi ñu dem ba mbëkku di arriéraat loolu baaxul da nga leen di jox espoir ni jafe-jafe bii dana jeex dinañ ci jóg yàlla dana soppi jamono bu soppi ko ñu xam ni moom moo ko dogal waaye nag lii du continuer amul benn situation buy continuer day jafe di neex day neex di naqat loolu ci ci la bokk ci motati beneen bi mooy ñaan bu nekkee ci crise dañoo war di ñaan sàlloo ko mooy arme bi gën a fatal bi gën a dëgër bi gën a am doole ci soppi loo xamante ni lu nekk la ndax yàlla subhanahu wa taala jamono jooju dafay xam ni jaamam bi moom rekk la yaakaar doonte sax ba mu nekkee ci leneen am na yeneen yu mu doon def waaye bu jafee lool bu taree lool yàlla rek lay dellu ci yàlla rek lañuy ñuy dégg bu nekkee ci jéeri ji mën nañuy bokkaale waaye bu duggee ci géej gi ba mu jaxasoo suñ borom suñu xel yépp ci borom bi rek lay dem te loolu moo nekkoon doxali ñu yonent yi moo nekkoon tam doxali ñu mag ñu baax ñi ak nit ñu baax ñi ci bu ñu tolloo ci ay jafe-jafe dañuy ñaan seen boroom mu teggi leen ci waaw wa ma kaana qawlahum illa an qaalu rabbana xfir dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin kon loolu ñu bàyyi ko xel ni moom mooy li nga xamante ni buñ tollee ci contexte yenn yi ñuy doxalin yii mooy ñu am discours bu apaisé buy éclairé beneen bi ñuy am njortu lu rafet ni mbir yi na soppeeku beneen bi ñuy wax ak xol yi waaye beneen bi ñuy ñaan sunu borom mu teggi yi ñu nekke barakallahu lana wa lakum fi alquran alazim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min alayat wa dhikr alhakim wa astaghfirullaha li wa lakum alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, dañuy jël ay exemple ci dundu ñaari yonent yoo xamante ni nekkoon nañ ci contexte crise waaye seen doxalin édifier nit ñi ba ñu génn ci loolu jàmm rek am apaisement am dañuy jël yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam moom yàlla def koo defoon yonent ak buur dafa amoon ñaari pouvoir waaye kenn daawul def dara lu dul ci ndigalam dajale na benn bis bëccëg gi mu toog di xool ñi mu yilif mu xool njanaaw yi gisu ci picc mu ñuy wax hudhud yonent yàlla Suleymaan menace menace la la def bu bu metti sax waaye mujj na bi hudhud ñëwee wax li taxoon mu absenté mbir mi apaisé wu yàlla dani wa tafaqada tayra fa qaala ma liya laa ara alhudhuda am kaana min alxaaibin la uazibannahu azaban shadidan aw la azbaxannahu aw la yatiyannii bi sultaanin mubin fa makatha gayra bacidin fa qaala axattu bima lam tuxit bi wa jituka min sabain bi nabain yaqin suleymaan dal yonent yàlla suleymaan dal dani dafa seetlu picc yi njanaaw yi xool gisul hudhud mu ne lu tax gisuma hudhud dafa absenté wala lan lan moo xew bu ñëwee dinaa ko kut wala mu mbugal ko mbugal mu tarata ab as ndiir rek hudhud aksi ni ko dama peeg loo xamul damaa xam loo xamul maa ngi jóge ba saba am na ndaw su fa nekk dañ koy jaamu moom ak ñi ànd ak moom dañuy jaamu jant bi bàyyi yàlla subhanahu wa taala ah Souleymane dëkk maanaam kilifa yenn saay balaa ngay am ay prise de décision xaaral ba am toutes les informations nécessaires ngay door a décider ndax yow yaa war a njëkk a wax yaa war a mujjee wax ndax sa décision moom mooy contexte ndax da ngaa yilif mbooloo bul nekk impulsif da ngay taxaw déglu setantal laajte xool xoolaat ni waaw laaj xalaat yamul ci loolu mais hud hud dafa joxe xalaat dafa joxe information ba pare waaye wax xalaatam loolu tam suñ mbokki journaliste yi nañ ci bàyyi xel boo defee recoupement ba pare information war nga ko analyser xool pertinance bi ndax am na pertinance li may wax am ndax am na importance ndax man na jariñ wala mën naa lor nga door a jàlleel waaye loo jot rek sànni loo jot rek sànni man ngaa sànni dara rek mu taal penc mais hudhud bi mu bi mu waxee Suleymaan li li am ba pare dafa wax xalaatam allah yasjudu lillahi alladi yuxrijul xaba fi samawati wal ard lu teewoon ñoom ñuy sujootal yàlla moo gën ñuy sujootal jant bi kon loolu lu jara bàyyi xel la kilifa nay diisoo nay concerté wu loolu tax ñuy wax ni kilifa dafa war a am ay conseil waaye conseil itam dañ koy wax lu koy jëriñ kilifa dafa war a am albitaana saliha ay conseil yu baax yu koy orienté beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dundam lépp ay exemple la ci ak dal am ak apaisement toll ci contexte crise waaye moom mu nangoo bàyyi ngir jàmm am te moo nekk ci dëgg feeñ na ci yu baree baree bari xoola bi muy door a commencé daawa bi mu metti lool ci moom ci Makka mu génn dem Taif ñu boole kook xale yi di ko jal xaj yi yàlla yebal malaaka mi yer montagne ni ko na wax rek ñu boole ñaari montagne yi ci dëkk bi ñu alag leen bu nangu woon rek foofu lay yem waaye moom dani yàlla ne jéggal sama nit ndax dañoo xamul allahuma axfir li qawmi fa innahum laa yaalamuun waaw allahuma axfir li qawmi fa innahum laa yaalamuun yàlla jéggalal sama xeet ndax ñoom dañoo xamul waaw noonu la ko Seydil Xaaj Malik waxe ca xilaas laaqa min assufaha maa laa afuuhu bihi wasaaqa admaw wasaala dam lil qadami lawla nabiyu rasula allahi laxturimu bi lax sa bay ni kin mën na bil karam yonent bi ku baax la kilifa noonu lay def maanaam na la ñi la jiital gënal sa bopp parce que yow la yow yow yow yow la ñu visé yow yow la ñuy xaar sa kàddu yow la ñuy xaar saw doxalin sa jëfalin lu am rek lépp yow lañ koy delloo mais moom mu jaral ko mu bàyyi sulxul xudaybiya tam noonu la defoon moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu fatxu makka nga xam jóge na ci faiblesse am force ñëw ubbi makka daay foog ni dan leen di song faagaagal leen mais mu wax leen kàddu gu am solo ni leen maada antum tazunnuuna anni faa'ilun bikum lan ngeen njort ni moom laay def ay bu njiit yi doon def bu nee ba fi moment bi ñëpp jaaxlee xalaat waa kii lan la war a décider lan la war a wax lan la war a def mu laaj question boobu ñoom tam ñu ne ko ah anta axun karimun wabnu axin karimin yow mbokk mu baax nga doomi mbokk mu baax nga loolu lañ ko wax mu ne idhabu fa antum tulaqa dem leen yéen ñëpp jéggal naa leen te njëkk muy wax loolu dañi ku dugg ci kaaba gi mucc nga ku dugg kër Abu Sufyaan mucc nga jox ku nekk cëram ngir lan ngir jàmm am mbokk yi jàmm luñ ko jënde jar na suñ réew mi fii ñu toll ku mën a wax ba jàmm am nanga wax ku mën a jëf ba jàmm am na ko jëf ku mën a ñaan ba jàmm am nanga ñaan boo jàppee ni yaa ngi toog sa kër mucc nga mën naa am mucc le woo sa ci mbedd mi mbaa ñu ci talibi bi mbaa ñu ci àll ba te xew bu boobaa danga nga jóg say bokk jóg say dëkkandoo jóg a bari na jàmm dañ koy wootal ni mool bi di def aw jën ci géej gi ba jàpp ko indi noon lañuy ñuy jàmm ci penc mi ba indi ko buñ ko sàgganee de buñ ko sàgganee magum waxoon naa ko nag moo gën magum xamoon naa ko ku ne ca la nga yilif ak ca la nga man jëfe ko ba réew mi nekkaat ci jàmm ba réew mi nekkaat ci jàmm ku mën a waxal ña nga mën a waxal ba jàmm am waxal ñoom waxal ñoom delloo si leen loolu mu ëpp solo lépp lépp lu ñuy mën a wut buñ ko amee am ko ci fitna loola gënul am ko ci jàmm ak dal mu muuke yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ñun ndaw ñitam tam nañu am xelum ñu bañ ñoo utiliser ñu nekk ay cobaye toujours bu jàllee affaire bi jàll ba banee nati kilifa yi itam di conscientiser seenu njaboot di wax ak ñoom kilifa bu mu yam ci njaboot gi seenu dépense ak seenu tëdd ak la ñuy seen fayum njàng day leen dajale yenn saay di wax ak lu ngeen xalaat ci nangam maa ngi leen di wax nangam bàyyi leen xel nangam loolu lu jaadu la ci penc mi rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina adaba annaar wa adxilna aljannata maa al abrar ya azizu ya gafar ya dal jalal wal ikram allahuma salli ala sayidina muhammadin nabi al wa ala alihi wa sahbihi ajmain qumu ila salatikum yarhamukum